ak auditeur du ñu bàyyi ñu yàq seen der ci réseau bi alors que l' agence principale Malick Sy est restée cinq ans kenn vérifié wu vérification c'est clair euh, dinañ si ñëw foofu noonu gën ko gën ko gën ko yaatal da ngay teg sa baaraam foofu ñu jox Fatou Abdou itam moom it mu introduire euh, tàbbi ci waxtaan bi ginnaaw bi ñu la nuyu ngi lay fay bu baax Mouhamed nuyu Ndeye Deme euh, nuyu également monsieur Cissokho ak euh, Boubacar monsieur Seye dinañ ñawaat ci yow peut-être dañu dem ci ci ci Boubacar alors euh, euh, journée du migrant ñi ngi ko doon màggal ci week-end bi euh, nga def bilan boo xamante ne dégg nañu ko ci xibaar yi jëm ci lu toll ci ñaar fukk ak juróomi doomu sénégalais yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan anam goo xamante ne leerul lan mooy indi loolu déjà ay doomu sénégalais yoo xam ne dañuy faatu ci bi ci réew ak lan mooy politique migratoire tey bu réewu Sénégal war a mën a taxaw pour aar xam ne ay doomam lañ nekk ci biti réew. waaw effectivement Ndeye Dimet euh, comme chaque année nu ñu koy defee. le mm-hmm. bilan migratoire euh, a été très noir donc mm-hmm. euh, dëkk bu mel ni Sénégal euh, ci à travers les assassinats ou morts. en des circonstances troubles ay doomu Sénégal yi dëkk bitim réew euh, sans parler des naufrages qui continuent d'endeuiller le peuple euh, sénégalais mhm. alors euh, ci ñun liste bi ñu am parce que souvent am na yoo xam ne duñ ko yëg mhm. il y a eu cinq doomu sénégalais yi nekk ci diaspora bi yoo xam ni ñii dañ leen rey mhm. ñii dañ leen fekk ñu dee ci anam yoo xam ni dara leeru ci Euh, bu ñu fait la cartographie de ces crimes la de ces crimes effectivement 60 pour cent yi Europe la donc jàngat bi ñu ci mën a am mooy tey euh, et nous avons même eu à alerte et que avec le coronavirus euh, beaucoup de tensions géopolitiques ci àddina bi ci immigration lay jóge soo xoolee Europe bi nga xam ni foofu la ëppee euh, on parle de théorie de remplacement Euh, migration nekkatul sax euh, un complément qui entraîne une dilatation de l'économie et de la société donc ñoom question identitaire lañ ko jëlee soo en France sax euh, ñu ngi ci campagne électorale kenn ci candidat yi dafa ni suma ma paree dinaa teg un ministère chargé de l'immigration et de l'identité c'est extrêmement grave nit ñi taxaw di leen seetaan donc fan yële weer yële passé c'est la présidente du Conseil européen qui parlait d'un mode de vie européen c'est extrêmement grave nit ñi dal ci kawam ñu del ci waat kon tey euh, lu ñu gis tey une Europe qui glisse vers l'extrême droite foofu la danger yi jógee moo tax ñu ñu ne woon suñu deful nànk rek euh, ku ci wadewul fula euh, di ñu taraxal say doom seulement bakken moom yàlla moo ko yore fa muy waddee ak ni muy waddee kenn du ko xam donc lii moo am tey si situation bi la ñu nekk donc tey euh, maintenant euh, nan quelle politique adopter mm-hmm. mooy tey li Sénégal lii ñun li ñu soxla ci diaspora bi une politique migratoire avec comme soubassement la protection et l'assistance des Sénégalais de l'extérieur parce que tey balaa nga naan naam ne fa coow li bëri na euh, te gis nga dana gën a yokk parce que c'est des questions la migration est devenue une marchandise électorale fonds de commerce la pour ces dirigeants qui ont eu à échouer dans leur idéologie classique on surfe sur l'islam et la migration dama koy faral di wax mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique baneen bi le danger moom mooy France bi nga xam ni tey au mois de janvier ñoom ñuy jël la présidence de l'Union européenne dina gën a metti parce que non seulement ñoom ñu ngi campagne te seen campagne yëpp boo xoolee la migration est au centre du débat kon tey donc marchandise la pour ñoom parce que pour gagner des points il faut nga xas immigré wala nga saaga islam. te seen i militants adhéré ci propos yooyu looloo ci xaw a. mais waaw mais ba ba pare beneen bi sax li tax euh, mu dangereux euh, on aurait compris que beneen dëkk daf ko comme le groupe de Visegrad et autres qui refusent benn contact avec les migrants mais la France qui a un social. un particulier parce que terre d'immigration depuis la seconde moitié du 19e siècle mu feeñ dans la composition de la population parce que ñeenti français yooyu ñoo jël euh, kenn ci maamam gan la kon dëkk bu mel noonu bu adopté yi position day xaw a waa waar. mais mais ci réew mi maanaam ñun suñu réew. Mhm. suñu ay njiit ni ñuy doxalee ndax yaw dal na sa xel ne dans le futur peut-être mën nañu apporter une solution. wala une bonne maanaam politique bu baax ci wàllu ayca dellu si. Mhm. Euh, dama doon contextualiser li tax tey ñu war a changer waat. Mhm. xam nga li tax euh, on a parlé de vingt cinq assassinats. Mhm. mais dégguñu benn yoon fuñ ci yàppi. donc en de telles circonstances. Euh, l'État devrait se constituer partie civile. l'État doit protester. ci loolu le pays d'accueil ci lay mën a ubbi une information judiciaire topp dossier bi. loolu dina soulager famille bi nga xam ne mu ngi ci tiis. est-ce que l'État nekkul di ko def ci suuf. non non attends dans un état de droit. Mm-hmm. wala nga communique non dans un xam nga loolu waxu fii rek la am. Mm-hmm. ñu ngi liggéey ci suuf déedéet. dans un état de droit ñu taxaw di la déglu américain yi bu ñu reyee seen doom dañu naan dañuy liggéey suuf. Mm-hmm. le FBI day wàcc fii doomu français boo rey ñu jóg protester kenn dootul dégg ci àddina bi. gis ngeen journaliste bu ñu laal euh, bali rek. kenn non attendez loolu loolu le débat n'est dans un état de droit on communique parce que soo communiqué wul réeroo am te ñun daf ñuy neex bu boobaa on aura l'impression ñu ne ah nous avons au moins un état qui qui au moins qui fait semblant de nous protéger ou de protéger loolu amul loolu la ñuy njëkk a ñaawlu il faut protester il faudrait l'ouverture d'une enquête il faut ñu topp dossier yi généralement ñin fi rey soo xoolee seen mbokk yi boo xoolee ci man sax la ñuy mujj ñëw euh, malheureusement je ne suis pas l'état du laa ci am soo leen moo on débat le problème maintenant il faudra euh, dafa am il faut sensibiliser parce que xam nga euh, le Sénégal est un pays à migratoire à à tradition migratoire ancienne migration pathologique la ñëpp a tukki ñëpp a bëgg a dem. Mm. kon tey euh, dafa am boo defee la typologie des crimes les crimes diffèrent d'un pays à l'autre donc dëkk bu nekk dafa am ce qu'on appelle l'indice de criminalité hein et l'indice de sécurité il faut ñu xam loolu par exemple il y a des zones de violence endémiques. comme le Brésil comme l'Afrique du Sud comme les États-Unis donc il faut ñu xam seen indice de criminalité et de sécurité dans chaque zone pour pouvoir sensibiliser moo tax lool moo tax tey politique migratoire baax moo tax ma ni il faut que ñu changer doxalin il faut que Sénégal mu teg un ministère plein chargé des migrations internationales ou bien une agence autonome parce que migration dafa transversale. bu ministère des affaires étrangères mais puisque ñoom ñoo yore dossier xëy na am na yu bëri am na problème yoo yoo xam ne Horizon sans frontière moo ko réglé. kon am na ñoom lu ñu mën a wax. ñun lu ñu mënul wax. Mm-hmm. ñun tamit ñoom am na lu ñu mënul wax ñun ñoo ko mën a la problème la crime yu bëri il la a fallu que ñu jóg même les expulsions suñu waxee nga gis dëkk bi arrêté Allemagne mu ngi expulsé ba léegi. Mm-hmm. suñu waxee nga gis ñu arrêté di def contre donc loolu la il faudra aujourd'hui une diplomatie pluriacteur mm-hmm. chargée de ces questions moo tax il faut. ce dossier est politisé. Mhm. il faut une agence autonome boo xam ni ça n'a rien de mhm. politique. relié directement à la présidence. Mhm. maintenant en attendant. Euh, puisque tey la migration est source de beaucoup de tensions géopolitiques il faudrait une nouvelle cartographie de la diplomatie sénégalaise avec de nouvelles juridictions pour une meilleure assistance. alors boo xoolee. Euh, ay ñu bàyyi la nga yeggale voilà boo xoolee ñi dëkk Brésil wala Argentine wala yenn dëkk yi dañuy wax ni euh, amuñu lii boo xoolee gisoo même sur les passeports là da ngay gis koo xam ni euh, pour ñu defaral ko passeport dafay am lenteur ba nga xam ni mu ñëw Sénégal moo gën parce que dëkk ba bële amul ñu ñële amuñu yooyu yëpp lu ñu war a xoolaat il faut une nouvelle cartographie pour une meilleure assistance ci wàll bu nekk aussi au niveau de ces consulats la li nit ñi déplorer les quatre vingt pour cent pour ne pas dire plus mm-hmm. ay politiciens lañu donc y a un mauvais casting Euh, on met le dañuy jël le diplomate de carrière dañuy jël ku mel ni Boubacar Seye koo xam ni du politicien la ñu nommé ko vice consul wala consul teg ko ci kaw diplomate de carrière bi donc dafay créer des dysfonctionnements. donc il faudra. muy muy ay jafe-jafe mais peut être loolu euh, xëy na ñoom Mouhamed dinañ ci ñëwaat. mais sànq da nga tudd passeport. ñu am fi loo xamante ne également dafa def actualité. puisque bu ñu waxee passeport tey Sénégal euh, jamono ji ñëpp xel yi dem ci passeport diplomatique yi nga xamante ne aveux yi explosif ce tudd ñoo xamante ne ancien ambassadeur di ci tudd ay joueur ancien di ci tudd ay ay kilifa. Euh, ñuy wax sax ne ki ñu ci teewoon euh, yëkkati na kàddu wax ne euh, ñoom dañu doon def seen liggéey ci diggante présidence de la république ak le ministère des affaires étrangères tey naka nga gisee loolu en tant que.